sëriñ ba mooma noon dinaa xamal ñi fi sëriñ bu baax bi fi newoon ba ñépp xam na kenn la di leen baal àq waaye tamit di leen baal àq tey ñaanal tamit uh, Serigne Mountakha Bachir nga xamante ni moo fi toog toogaayu Cheikhul Khadim ñu di ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal bi na ko gi ko maamam ji di Cheikhul Khadim yàlla may ko ci lu kawe njoxtam waaye noonu itamit lañ koy ñaanalee mboolem xalif généraux yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi waaye tey nag uh, équipe daal di ñëw fi nga xamante ni moo di Daaru Muxti Daaru Muxti nag bu ñu ko waxee kenn yëpp day dem ci jàmbaar ja mu di maam Cheikhna Birahim Mbacke nga xamante ni moom la ñëpp di roy ci ak taalibe ak bëgg gi nga xamante ni bëgg na ko Cheikhul Khadim bokk gi ñu bokk sax da koo daal di jël rek euh, teg ko ne ngir rek euh, nekk taalibeem liggéeyal ko liggéey bu am solo tey nag ni moom la ñu koy màggal ñu daal di ñëw ba fii ci Daarul Muxti ngir dundandoo nag li nga xamante ne nii rek euh, moo di wàccam kaamil mi ak li nga xamante ne nii moo di jàngum alxuraan mi waaye tamit dañuy ñaanal Sëriñ Basiru Mbàkke Anta Ñaŋ moom mi nga xamante ni moo toog toogaayu Maam Cheikhna Birahim ñu di ko ñaanal suñu borom yàlla na yan bi daal di oyof lool ci boppam ak ni rek moo di njabootu Maam Cheikhna ñu ngi leen ñu yàgg fi lool lool lool te ànd ak wér màggal gi nag ren dañu koy màggal ak contexte bu xaw a doy waar mu di Covid bi gis ngeen ne màggal daaru daan na gën a xumb li ni mel waaye nag comme que jamono ji nag day jamonoy mbas lépp loo xamante ni rassemblement la rek dañu koy tere moo tax nag yëf yi daal di demee nii waaye nag du tee ndax kooku da di jàmbaar bu bisam ñëwee rek man naam dañuy wàccee kaamil sax daal di nga def ay ñaan ak ay sarax ak yu ni mel waaye du tee dañuy daal di ñëw ngir nag jàmbaar ji nga xamante ne nii rek moom la doon mi maam Cheikh Ibrahima Mbacke bu ko defee rek Bamba bu paree dañuy daal di dugg rek Euh, dugg daal di jël ambiance bi nga xamante ne nii am na fii ci biir ñu daal di nag euh, taataan suñu micro ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pèlerin yi ñoom ñu wax nag yëg-yëg bi nga xamante ni bii rek am nañ ko tey bu baaxee rek Bamba ñu daal di dugg ci biir jërëjëf tey ziar bu baax a baax tey nag nekk bis bi nga xamante ne moom la ñuy màggalal jàmbaar ji mu di maam Cheikhna Birahim lan nga ñu mën a wax ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax di siyaare képp koo xamante ni yaa ngi gis euh, interview bi di siyaare mbokki jullit yëpp ndax bis moom li ci jiitu mooy bisub lislaam la ndax nif Chaabaan li ci wàcc bari na ngëneel li ci am bari na waaye nu nit suñ Tuuba suñ borom defal ñu ci xaas suñ Tuuba taw féexal ñu ci ba bis bi itam ñu ciy fàttaliku jàmbaari lislaam ji murit saadix bi modèle bi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa bëggoon murit yëpp roy ko ndax eh, damay wax ne produit fini boo xamante exemple la bu ñu mën a exposé ci ab murit ci Thierno la yem waaw Thierno day kenn waaye gën ci ràññiku nag li ko murit yi war a gën a nawee mooy li li li li li li ëpp solo ci nit la am mooy jom waaw ak bëgg sëñ Touba sëñ ko ak bëggam ci moom bëgg sëñtuwaa yomb na waaye sëñ Touba xam ne danga koo bëgg lu jafe la. waaw te Sëñ Tuubaa nee na Ceerno moom dañ koo rend ci bëgg ma waaye qualité yi nekk ci moom it jafe lool nga xam ne bu ci buñ ko exposé woon mën naa mën naa indi ndimbalu àdduna ci jukkoom yu rafet yi mu am ci murite gu mu murite ak exemple bu mu doon ci produit fini ci ab murit ni mu war a mel loolu nag li ciy seede mooy sëñ Muntaxa li mu wax bërki démb rek mais ne na moom doy na sëkk waaw na doy na sëñ sëñ bi ëpp na Thierno doy na loolu doy na sëkk ñu ngi leen di siyaar yéen itam ci que jotul ndaw yi tamit daal di daal di juma demaat jooju juwaat ci jikko yi nga xamante ne kii di maam Thierno amoon na ko. waa loolu moom maanaam ndaw ñeeg mag ñee ci yem <laughs> Thierno moom wax dëgg yàlla murit bu jullit bu bëgg lu baax lu ne war ngaa mën a roy Thierno ci jullitam ndax Thierno moom loo ko mën a wax daawul daawul fooy diine mhm. wax nañ ne jàkkaam ji. jamonoy ji nga xamante ni Daaru si jafe woon na lool ci am ndox maanaam nga xam ne nit mar na fi ba mar rey ko Cerno daawul nangu nga dugg ci jàkkaam te yeesaloo ak njàpp loolu nag exemple bu rëy la ci diine waaye murite gi nag ak bëgg sëñ Tuubaa gi itam moom it euh, murit bu ne mën nga cee roy ndax euh, ni nga ci mën a royee mooy Cerno moom wax nañ ne bi nga xamante ni jàng jàngoro ju mel nii agsi woon na fi muy peste bi sunu borom eh, wàcce tawat ji ci jullit ñi ba dal ñaari doomi sëñ tubaa dafa tàllal boromam loxo ne ko bis bu sëñ Touba naree ñëw ma di ko laaxaan doomam yi nga jële ma fi jële fi soxna Faati sa sama waajur jële fi sama doom yi ma jot am loolu fa la bëgg ma la yem déggaante googu ku def lu toll noonu ci yoon wi waaw moo tax ñu ngi siyaare ñëpp tey jaan ñëpp rek ñu suñ borom defal ñu taw may ñu may ñu may may may may may ñu may ñu may ñu may ñu ndimbalug sëriñ bi bañ mën a dëppoo ak Ceerno ci jukkoom. sëñ Bass Anta Niang moo toog xalifa borom daaw te dañuy ñaan yàlla mu teewee ko ay déwén wante lii moom lu rafet la na màggal gi moom wax dëgg yàlla moom xëy na bi mooy ñaari at daanaka defuñu ko xëy na nag sëñ Touba moo am lu mu jàngale ci màggal gi te dañuy ñaan. màggal gii di ñëw day gën a yaatu. yow Fatou Dieng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo noppee nag ma ko yoon ngir rasen lu yomb la. Cheikh Ibrahima Faati lay xamal ñi ko xamul ñoom laay xamal. وبجاه عيسى واخيني دنيا واخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليه لأبي مانا قد صاحب الإسلام والإنسان بحرمة الشديق والفاروق يلي بالإخلاص والتوفيق بأخذ معنا أخي النورين وبعلي والد ستين أبلي في الدنيا يما أخرايا النور والهلوى والمصايا بأخي طلعته بشبير وأقص بالنجم tur beeg sant bi naka la. Daawuda Samb. Daawuda Samb fi ñu nekk nii mooy fan. Baydil Mahmour di kër borom Daaru Mooti. nekk barab bu yéeme boo xamante ne nii mën naa ni Serigne Touba moo ko jox borom Daaru Muxti ndax bi mu koy sanc di dëkk bi da ko yebal mu daal di yorwaat aw fas moom borom Daaru Muxti di dem mu ne ko bu la tàkk bu la tàkk san fekk wàcc fa nga daat koy sanc ab dëkk tudd ko Daaru Muxti ba mu wàccee ba tàkk san jotee léegi nag ñu daal di dëkk bi da kuppal la woon mu daa di laajte fii fan la ñu daal di fii tooki jag la léegi mu daal di tooki jag mooy ku toog di nga jag ci la ko sanc nag daal ko def Daaru Muxti moo nekk dëkk bu sell nag nekk kilifa ay doomam it nekk ay kilifa ñun ñëpp ay njaboot bi nekk fi am nañu nekk armée la waaye ñooñu dañoo njëkk dëdd borom daaru muuti waaye ñi dëdd ci ginnaawam ñëpp ñu ngi fii ñeneen ñoo fi nekk ñoo xam ne jën bokkuñu si njabootam muy seen soi may ab sëtam la ak Serigne Makhtar Samb Diop mi li jaay ñun ñëpp xam naa bu ñu wëree ci ginnaaw dinaa la leeralal bare bi kenn ku ne fi mu moom moom moom moom nga xamante si ni moo nekkoon xalifa borom daaru muuti 2003 ba 2012 daal di jox sëriñ Abbas Mele yàlla ko suñu borom yokk leen dara seen barke moo dëdd fan yàlla ba si xaadim yi mu liggéey fi liggéey bu rëy jëm ci Darou Mouhty ndax fii nii nga gis ni bâtiment yi nga gis ni yëpp benn nekku fi woon jumaa ji it melut woon ni ak daara kaamil ji ak jàkk ji nekk ring saaf ak armeel yi ak maanaam yu si bëree bëri ngay gis moom ba si xaadim moo ko sensé yoroon ay milliards nag ji liggéey liggéeyal borom Darou Mouhty ba pare dëkkoon ceeb néegu ñax nekkoon xalifa borom Darou Mouhty borom Darou Mouhty fonkoon ko bëggoon ko mu jaraloon ko lu ne rek ci ak njabootam nga xam ne ñoom ñëpp danoo jaayoon seen njureel jënd ko ak taalibe moom Baasi Xaadim yi ñu ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram ca taasuñu si barkeem lépp lu liggéey suñu borom fay ko ci daraje borom Daaru Muxti di ñaan ñëpp di leen ñaanal yéen nga xam ne yéen fi ñëw di si gëstu yàlla leen suñu borom yëkkati fépp foofu te ak suñu borom ak njureel ak taalibe moom di naan moom dafa dëdd woon àddina dafa soxlaat ndax di naan àddina ah, li naan moom mooy li sëriñ Saliou naan nit ku ne suñu borom tax na ñaar bi biiru jëm biiru bàmmeel sa biiru jëm mu fay def bu mu la itteel sa borom la itteel sa biiru bàmmeel la nga fay def la itteel ndax kenn ku ne loo fa def fa nga koy fekk suñu borom deful kenn dara fa lañ jëm waaye nag suñu borom baax na baax goo xamante si ni kenn ku ne moo la mën a jariñ fan jëm waaye moom dafa yàgg a wane dafa yàgg jàngale message moom moom moom moom baasi xaddi ndax jëf ji nga fi gis ni yàlla xam na ni fii ni daanaka mag ñi fi nekk daare kaamil ak bayti gii nii ngay gis ni ak dëkk yu ak dëkk yoo xam ne borom laa amatu ko da koo jaraloon lu ne da ko jaraloon ne ndax këram mi ngi nii boo génnee di ko gis moom nga jàkkaaral étage bi fi nekk daanaka bi ñu ko fi taxawalee yàggu te bi mu fiy dëkk yàlla xam na ni boo ko gisoon donc maam maam jëmm sëriñ Saliou la yoroon daal boo gisee yéen ko sarax te fekk ni dara àddina moo ko ñorul maam jëmmi borom laa moo ko yoroon moo ko ñoroon ñun bayti fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen jàngi bayti melut woon nii bi fépp suuf la woon ñun ñoo ko daan bale daan ko def leen bare melut woon nii miir yi na ay yoo xam ne dafa dafa meloon ni leen xar mu ñëw sans xalifa moom yàgg naa jàngale message ci àddina bi soxlawu dara àddina lépp lu ko joxoon borom daaru moom moo tax suñu borom fay na ko fay gi gën di fay ñu ngi ko ñaan suñu borom doole ko barke too waxte ki ñuy màggalal tey muy maam Thierno nekku nit koo xamante ni ku yéeme la neexut a waxtaane ndax topp gi nga xamante ni toppoon na ko magam ji di Cheikhul Khadim naam na ñoo bokk mais teewul lépp dafin moom it daf koo daal di jaay jëndee ko ak taalibe kan lan nga ñu mën a wax ci jëmm ju yéeme jooju borom daaru moom dafa nekk jëmm joo si ni moom mooy Serigne Touba Serigne Touba borom daaru moom ndax dëkk ma ne ma nga ko tudd mais capital yoonu Mouride boo nee Touba Daaru Muxti nga siy teg moom borom Daaru Muxti sëñ Touba ko ko jox ndax ma ni ko doo ko ni ko borom Daaru ah, ndax sëriñ Touba mos na boo julli ba pare mu daal di temps yooyu ay saako jafe lool sëñ daal di yónni borom Daaru Muxti dañu ku ma wutal ay saako mag ñëpp toog borom Daaru Muxti jug ni man mën naa ko wut am benn mag bu ko woo daani ko xam nga ne lii la sama gi wut loo mënta nekk ndax ay saaku ndax ay saaku jafe na fi mu toll nii mu naa ma li mu ko tontu mooy xamuma xamuma suñ Tuubaa ndax lu mu bëgg dina am te lu ma sant dinaa ko def Pastef nag foofu la àndoon foofu la tolloon mu nekk koo xamante ni dafa yéeme ci borom Daaru Muxti ndax mooy ah, borom suñ Tuubaa moo ni ko ah, bëgg ma bu doon appaag dañ see rendi borom Daaru Muxti moom borom Daaru Muxti moo xam dafa sàpp ci bëgg suñ Tuubaa bëggu dara bëggu dara bëggu dara ndax fii nii lépp lépp luñ fi mës a indi ndax ba sa jamono ji nekk bi ak suñ kilifa yi dan naan nan ki fi nekk sëñ Tuubaa ba pare wax jum fi wax ba ci màgg daaru muuti gi nga gis sëriñ ba seetlu nañu mooy kilifa gi waaye ndax ñun danoo nekk njabootu sëriñ Tuubaa mu transféré ñu ci borom daaru muuti nga xam ne nga xam si nii moom màggal gi nga gis ni am nañu xalifa waaye suñu xalifa yëpp dañoo waat ci njabootu sëriñ Tuubaa ndax amuñu ku dul moom te luñ mën a am tey ginnaaw suba ak tey it mooma waaw moom nag nga daal gis ni dafa nekk maam ku amul fulla ku bëgg sëriñ Tuubaa koo xam ne si nii daal jëf na si yoonu Serigne Touba jub loo xam ne ndax moom bi soxna Fatou Issa bi mu diggante ci saayir de ko sëñ Mamadou Seli waxoon ni ko bu fekkee góor la moo la jàppale ci sa liggéey bi su fekkee jigéen la kon nga xam ne sa mission yow yaa koy doo yow Serigne Touba kase ndax ma dafa am mission bu ko bu ko taxoon jóg moom Serigne Touba ndax na bu ma sama ittee bopp taxoon jóg du ma fi am génn guddi moom kon ba mu daa mur bi mu liyee Serigne moo ko di naan toqantal jox ko ko ba pare di wër néeg bi am mbégte lool borom daal moytu moom nga xam ne bi Sëñ Tuubaa dem sonaloon ko lool di Sëñ Tuubaa demee ci tukki bi ga nga xam ne bi mu demee ci tukki ba tax ñu ni ko fu mu demoon ñu daal koy dàq ba mu jigi ay sëriñ Moustapha tawat ak sëriñ Fallou léegi euh, ci la ko bor ci la ci la ci la borom daal moytu waxee yàlla ni ko ñëpp Sëriñ gi bu naree dëddu ci sama ci ci seen ginnaaw waajur wale mu Sëñ Tuubaa ñëw ma koy laaxal ñu botam gi dina ma ko wecci na ma yàlla jël wala mu jël suñu borom bàlle mi taam wala mu jël soxna waat Issa Diop kon nag bëgg foofu waaw kay waaw waaw kon nag bëgg foofu la foofu la mënoon a toll ak ku taalibe ak ku geeg ak ku nekk nga xam ne bi borom daa moo ci dem suñu tubaab dem kaas ataay bi ñu ko déggoon bi ñu ko déggoon sax wax na ni seddul ba tey amul moo ko ndax borom daa moo dafa dafa dafa wàcc liggéey léegi ñu ko daan ñaanal Serigne Fallou daan ni kañ leen koy ñaanal léegi bi suñu Fall nekk ñam koy ñaanal ñu wax ko ko suñu Fall moo ko indi fukki fukki fan ak juróom-ñett yi ci weeru Saxbaan daani bisub naqar kenn du ko fàttaliku bis bis bi bis bii la Sëriñ Tuubaa borom daa mudi gisante woon suñu Fall daani léegi ah, màggal gi nañ ko yóbbu ci fukki fan ak juróom-ñett bis bi nga xam ne ci la borom daa mudi Sëriñ Tuubaa gisante woon daa bisub naqar buñ koy fàttaliku ñu fàttaliku bis bi mu gisante ak Sëriñ Tuubaa mu borom daa mudi mu jógee fi bi fi jógee yi màggal màggal gi nag suñu borom dogal ñaari at yi suñu borom ak ak ak kàttanam ak man-manam def ñu woyfal comme ni mu ko soobee waaye lépp tawfeex la waaye bi nga xamante ni màggal gi ñu ngi koy màggal tàmbalee ci sëriñ Mor Obale mi taawam sëriñ Abdul Khodos Baasi Xaadi sëriñ Abbas mi ba sëriñ Bachir Antañ mi fi nekk suñu borom ñu ngi koy ñaan suñu borom ak gudd fan gaanu mu nekk màggal goo xamante si nii ndax bu nee dafa am loo xamante si nii dañ ko war a def ci bis bi dañoo war a xëy jàng alxuraanul karim jàng salaatu ala nabi jàngal borom màggal gi lii tax ñu ñëw fi na màggal boo fi ñëwee bu fekkee da su fekkee ni màggal moo la indi war nga mën a yor comportement boo xam ne si ni ku ñëw war naa xam ne kii màggal moo la fi indi mhm. mu nekk loo xam ne si ni lu baax la ci yoonu mu tey moo doxal yoonu jërëjëf Serigne Daouda Samb leeral yi am na solo bu baax a baax am nañu mbégte bu baax a baax tamit doon feggoo ak yow gis nga bërëb bi ñu nekk Bamba mu di uh, Béyti gis nga nag ay ngëneel rek moo fi daal di nekk indi nañu ci nag ay xamante ni bii xamuñu woon lan la ñuy màggal mooy bis bi nga xamante ne ni Serigne Touba ak Mame Thierno ci lañ gisee woon moom la ñuy màggal nii mu nekk na bis boo xamante ni bisu ngëneel la bis boo xam ne dañ cee war a jàng alxuraan jàng ci ay xasaayit ndaxte nee na lépp loo ci def rek suñu borom dalu koy fulal ñu ñaanal ñëpp rek ca uh, màggalu ko jàmm ndaxte ku ne murit xam ne berne ci la bokk comme sëñ bi ni mu ko waxee sànq dinañ berne dinañ jàng alxuraanul karim waaye tamit dinañ jàng xasida mu nekk nag Daaru Muxti dëkk boo xamante ni dëkk bu ngëneel la dëkk bu bëri lool lool lool ay ay ay wilaaya lépp a ngi ci biir dëkk bii di Daaru Muxti kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp màggalu ko jàmm di leen joxaat rek dig daje ba beneen yoon ak yeneen i yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci Daaru Muxti jërë ngeen jëf